silahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit kon nag ñu jox la kàddu gi nga ñaan waaye ñu te seen ñu bëgg yéen ñëpp ñu àndandoo déglu ki nga xamante ni mooy imaam. ci li yàlla di def yàlla la njëkk recevoir boppam jox yàlla boppam te kuy wax ak yàlla taxaw si jataay bu mel nii mu jaral la nga jug taxaw fëgg sa dënn waxta yàlla dongu tax. yéen ñëpp wax leen alhamdulilahi rabbil alamin kon yàlla la njëkk jiital ñaareel ba asam jaata ñi ko topp ñëpp ay jeunesse lañu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ni fépp foo dem jeunesse bi ëpp fa sa xel na dal kon yéen ñëpp war ngeen sant yàlla ñetteel ba itam mooy asam jaata mii la muy xeex mooy jeunes yi ci boppam ëllëg ñu mën jëriñ seen askan te loolu ñun ñëpp xam ngeen ni jëmm ji la ma waxoon ni programme am yëpp dialogue la amul lenn lu mu def te diisoo woo ko ak Kër Massar man kenn laa ci imaam yi nga xamante ni ñoo nekk Kër masaar ñëpp tey man la ñuy woowee imaam de la jeunesse imaam de la jeunesse nag bu ànd ak jeunesse bi xam na lu jeunesse bi dëgg. tey lépp lu may wax ci imaam yu mag yi ba ñu toogee di réunion ba ma jëlee sama doléance wax danni ma yaa ngi ci kanam yaay jeunesse bi ñun ay mag lañu foo nu joxoñ foofu la loo ñu wax foofu la kon nag jëm ji dañuy sant yàlla xam nga dangeen di sant yàlla tey ajuma la ajuma mu sol ñëw ci bayaanu unité 16 16 ku ko xam ci ñun ñuy def lislaara xam ni 16 chiffre la 16 16 chiffre la dama bëgg ngeen déglu ma attentivement déglu ma ak xel 16 kuy def listraara yor sa kurus di wérd xam ngeen fukk ak juróom benn secret la mu ñëw ci ngoonu ajuma ci bayal bii bayal bii nag daa am lu garaaw lu fi nekk mooy surtout Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké di Cheikh sëñ Abo Mbacké di xalifa sëñ Fallou fii toog na fi def fi lu ne bayal bii fii la ñu fale woon Moustapha Mbeng wallahi wal kitaabil azim fii la tëje woon mitinam ñu xëy suba mu falu maire la yàlla defoon ci barke sëñ Fallou yàlla na ko defal jëmm ji yéen yëkkati leen seen wax wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu gën a góorgóorlu nag te xam ni nit ku ci ne booy bay sa wewu tànk ci sa bopp ngay commencé jëmm ji Kër Masaar yëpp foo dugg doo rus waaw amul fu may dugg te rus ndax moom dafa dajal Kër Masaar Kër Masaar buñ ko joxee njukkal yàlla wan leen loo xamante ni duñ ko mas a gis ci àddina nee naa leen fii 94 ba léegi maa ngi Kër ma Massar kon yàgg naa fi ku ne ñëw na fi fekk ma fi waaye c'est la première fois may ànd ak leader muy soxna Assam Diatta mi ñi ngi koy ñaanal ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñun nag suñu xol dafa sedd ndax lan ki nu àndal dañu xam mooy kan ndax ragal péete ci gàttu wërsëg la bokk te bu ñu anee fulla ak fayda taxaw di wax kii lañuy seet muy yàlla bu deful woon dara diine ji ñun duñ taxaw fii di wax parce que ñun diina ji moo ñu intéressé ak jeunes yi waaye comme loolu mi ngi ci il faut ñu takk suñu tubay jox suñu mbaxane ànd ak moom xuus ànd ak moom jox ko mairie bi incha allahu rabbi ci doole yi sëñ fàllu ci doole yi sëñ nag kon nag su ko defee ñu bokk def ñaan ñaan nga seigne Fallou daan ñaan rek rabbi anzilni hajatan amin te daf ko daan joxagn de wa rubba amin ya xawjatan wa nisa'ada ni'matan amin wa rudda yulana fi'lan min kulli fathatin amin anta wali soclatal barakatin amin wa nurul basmalatin bi nicmatin ladu du an faalin min ka jadidil akbar la hawla ولا قوة إلا بالله العظيم تعادنا سهلا من كل بركة اللهم يسر لنا يو أمورنا يو مع راقتنا يو من قلوبنا يو اللهم زن لنا لا ترى لنا زنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضينا إلا حديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قديتها إنما أمره ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun laf cat laf cat laf cat ay jërëjëf waay imaam dama ne suuf yi ci jëmm yi fi teg seen tànk la ñu gëmantee kii mu tudd léegi mooy sëriñ Abo mu Cheikh Mamadou Fallou Fallou suñ jox réew mi càmmiñal ma moo am borom du am du am borom juróom ñaari fañ Fallou faj ko soxla waajal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jóge woon buun di leen jox seen wàccuwaay amal sa micro nga. merci encore une fois ñu ngi leen di jaajëfal li may faral di wax rek innal ulama warasatul anbiya yi borom xam-xam yi ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo fi nekkal yonent bi mais dama ne nit mooy xalifatul ardi ci kaw suuf amul sikk loolu xam nañ ko ndax lu tuuti tuuti am na lu ñu xam su ko defee nag. kàddu gi dañ koy jox kilifa gi nga xam ne moo tax ñu toog fi ndax dafa war a génn à partir de 22 heures dafa war a dem Proxi TV te nag dafa war a def benn réunion bu ndaw di leen xamal ne bu ñu paree nañu toog ñu añ fii ba pare ñu doog a dem siège moom ñu yeewu ko ak sécurité bi ñu dem Proxi TV su ko defee madame la ministre ah yaa ngi nii fii nag lu ne xaw na fi.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 ak euh, sous comité yi seen membre ak ñi ko jiite kontaan bu baax bi ñu délégué aussi di wax ni tey moy bés bu mujj ci campagne électorale à partir de demain kenn en tout cas diggante demain ak gannaaw suba kenn warul sol t-shirt parce que euh, yoon da koo tere taxawaay gis naa seen taxawaay bu am solo ci campagne bi yépp li ci des nag mooy fexe ba li nga xamante ne moom la gis ci terrain bi mu bañ a naax saay il faut ñu sécuriser yi ndax nag comme li ngeen ko seetloo fan yi ñu jóg génn am na ñoo xamante ne dañoo jóg taxaw pour saboter li nga xamante ne moom mooy volonté populaire am na ñoo xamante ne dañoo fas yéene confisquer la légitimité populaire kon nag ñun tamit dañoo war a jóg taxaw tem di woote toujours jàmm nag waaye am fulla ak fayda fexe ba li nga xamante ne moom la population bi bëgg ñu defal ko ko moom la population kon maa ngi invité ñëpp ñu nekk mobilisé ku ci nekk na fexe ñi nga xamante ñoo nekk sa gannaaw nga fexe jour ba ñu voté bu subaa am nañu réunion siège pour def dernier réglage yi ndax gannaaw suba ku ci nekk nga mën a def vote bi comme ni mu waree sécurité bu doy danañ ko teg si zone yi yëpp bu ko defee ñu protéger ñi nga xamante ñoom ñooy dem waaye état jël na ay matuwaay yu mat sëkk pour fexe assurer sécurité ñëpp ci biir centre kon nag ñu ngi invité ngeen fexe mobiliser waaye fexe ba ñi nga xamante ñoo nekk seen ginnaaw ñëpp ñu dem wote département bi ñii di xëccoo mairie kon ku dugg ci bureau de bi dafay laajte fan lay ñuy votee mairie ndax man mairie lay xëcc boobu nag am na ñetti am na table boo xamante ne am na fukk ñetti xob yu ko nekk fukk ak ñetti xob yooyu dana ciy tànn juróom juróom lañ ciy tànn man nag kii moo ci sama bos ngeen ko sànni lii ngeen di dugal ci enveloppe bu ngeen génnee tamit laajaat leen fan ban mooy keesu mairie parce que am ñaari kees comme ñaari election la kon na ngeen laajte ban mooy kees mairie bu ngeen dugal ci mairie kaay su mairie bi nag li ci des mën ngeen bu ngeen xoolee bu ngeen bëggee mën ngeen voteel keneen ci département bi waaye fexe leen ba sécuriser vote bi nga xamante ne moo ngeen yor moom commune bi bu ngeen te jubloo njëkk leen voté commune bi moom mooy fii Benno Yaakaar mooy mairie bi di wax ni ñun ñoo ànd xalaat le projet municipal li ci des tey jii mooy dem jëli jumtuwaay bii tax ñu a doxal sa projet municipal li nga xamante ne loolu la bëgg nag nañu jaral lu ne parce bu fekkente ne nit ñëw na bu opposition bi taxawaay bi mu am kon du ñu nangu kenn foppati volonté population te loolu nag jeunes yi surtout laay waxal damay faral di wax ni élection yi élection jeunes yi la parce que jeunes yi ñoo bëgg a bindaat beneen histoire bu bees fii ci Kër Massar waaye ci Sénégal kon nag nañu am full ak fayda ba nga xamante ne dinañu sécuriser population bi fexe ba nit ñi voté yàlla ki mu euh, décidé ne kii mooy jiite mu jiite waaye yal na yow yal na yow yal na yow soog yal na yow yal na jël ndam mu doon ndam boo xamante ne du sedd buy mu doon ndam boo xam ndax fii dëkk waaye ci waa kër ma ñoo ngi leen di gërëm di leen sax maa ngi buur xam nañ li mu représenté waaye xam ngeen ni tamit am ngeen ko taxawaay bu dëgër kon nag nañu jàpp ba mu dëgër bu kenn démobilisé wu li ñu doon def danañ ko defaat xëy na si anam boo xamante ne mën naa bañ a bas comme nii waaye nañu fexe sécurité suñu vote ñu ngi leen di remercier imam Camara maa ngi leen di remercier kontaan naa bu baax. yaa sargal géwél yi sargal nabi yi